ay defar ça fait huit jours maa ngi lijjanti départ na maanaam aju Sarr elle est folle mhm. dama ni mhm. maa ngi lijjanti numéro benn nit ak ci boo ko jotee barke yeneen ci su bëggee man dinaa dinaa sama bopp pour ñu dimbali Adji Sarr ndax xam nga lu tax dafa nekk innocent boo xam ni doon ko dugal ci leen koy dugal ba pare Adji Sarr attanu lii ko teg ak yow kii wallaahi Aziz dama lay Adji Sarr mais mais ne gàmbeekat bi mu ko waxee ay waxu ay waxu balaa balaa la rek pour stratégie la woon pour mu mën a génn si problème bi xam nga man Gabriel Kane mënu ma ànd ak moom ci ay waxam ndax man Gabriel Kane mën naa ko gën a contre ci àdduna bi mu ñëwee fii États-Unis jour boobu mooy ah, ah Abdou Fall yaa ngi fàttaliku bi ma ne damaa demoon New York def fa ñaari fan. New York waaw waaw. waaw euh, yaa ma gën a xam. Mm-hmm. moom xam na ni man faale bu ko ay ay waxam intéressé mais daf xam nga ni su waxee dëgg da ngay wax dëgg la. Adji Sarr départ na nelawatul fu mu toll mu ngi jooy. Adji Sarr boobu dem day tëdd di yuuxu di gént li muy gént ah. ay nit. ma wax ko mu dee ñi dee ci événement marché yi dafa am ñeenti nit yu ciy gënt traumatisé na ko dama nan dem dimbali doomu jàmbur ji xëy na def na erreur àdduna ku def erreur amul yàlla sax da nga koy tooñ baal ko bu baal la yombul xeex bu dugal àddina ku gënoon bon ci nit ñi danaan fekk ay néew di leen tëddee te teewul bi mu deewee suñu borom du ko jëgal digal ko àjjana Adji Sarr xëy na def na erreur ci vie erreur boo xam ni xamut ci àddunaam te ñenn dugalu ko ci sunu Mamour Diallo kon nan bàyyi doomu jàmbur ji mu ngi départ mu ngi dof nan na ko ay mbokkam jëli loolu laa am message bu may lancé képp ku ci mën dara nga def ko ngir jëm